waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki eh, jullit ñi mbokki Sénégal eh, ñu ngi nuyu ñëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci xew-xew boobu nga xam ne bu metti bu tiis bi nga xam ne moo dal kenn ci suñ doom yi américains yi koy wax Mohammed Abdul Aziz nga xam ne ay eh, yongaankat ñoo leen fekk seen buntu kër caw leen ay jaase ba mu dee bàyyam ti mu ngi noonu ci coono nga xam ne ci la nekk ñu ngi koy méttilu di wax inna lillahi wa di ko jaale njaboot gi yëpp di ko jaale sëriñ bi al xalifa di ko jaale al imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé di ko jaale mbooleem mbokki américain yi waaye tam ñu ngi ñaan autorité yi ñu jël seen matukaay taxaw ba topp ñi nga xam ne ñoo def mbir mi ba àtte leen teg leen ci yoon ndax ñi daw seen dëkk daw seen diine ñëw Sénégal pour muccee seen diine lu mel nii fekk leen ci xam nañ ne dee moom dafa am dogal waaye am na tim ay sabab ñi ko sëbab ku sabab rey benn bakkan alquran xamal nañu ne ku rey benn bakkan mel nga ni ni ñëpp nga rey kooku nag war nañoo taxaw temm ba jàpp leen atte leen te war nañ tim euh, jugaat ci sécurité bi nga xam ne nii Medina ak li ko wër manque yi mu am moo tax lii nii mën a am ndax euh, xew-xew bii ñii ñu ngi leen ko def ci seen buntu kër ñu ngi ñaan yàlla aji dem ji yàlla yërëm ko te xarfe ko arjana dëkkale koog yonent bi sallallahu alayhi wa dëkkale koog Mawlana Cheikh Ibrahim ak imaam xasan mi nga xam ne moom lañ fekk si woon ngir ut alquran ak leeral seen diine yàlla yërëm aji dem ji bàyyi mi nga xam ne tim mu ngi feebar yàlla saafara ko delloo ko ci sagoom bi jaay rasulillah salaam alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu muhammadin maahi